ay ca doore kox yéen kay groupe des médias nee Ousmane Sonko teg nañu ko loxo de teg nañu ko loxo l'arrestation de Ousmane Sonko waaye yéen kay bi na bizarre na lool na mbir bizarre na ñu ne déet mu ne dafa xeeblu ridicule laa wax l'arrestation bizarre et ridicule de Ousmane Sonko lii la yéen kay groupe des médias xëy tey jii laaj ma lu tax nee na sàccum téléphone la ko jàppee ñu ne déet mu ne fitna bugaan ngay dañu njiital gëm sa bopp nee le procureur vise une hideuse affaire xeeblu na lool la wax ni Déthié Fall daal di ko ca feelu moom la muy sàkku na guddul nañu bàyyi jambour mu dem la classe politique dans tous ses états mer ba futt la def l'info yéene ne bo len beugé dégg dëgg de merax ñak mere ceem waaye Ousmane Sonko daanu na daanu arrestation du président du PASTEF l'info yéene kaay ne gannaaw ba mu ci mbiri Mambey Niang ñu ne dété way affaire Adji Sarr daal di dik mu ndetteelu daal di taxawaat Ousmane Sonko mu tëmbal boppam laa la wax ni de ci loxoy gendarme yi le procureur de la république ci l'info yéene kaay nee na man ci bopam ma jox ay ordre wa sûreté urbaine bu commissariat central bu Dakar ngir ñëw pia blanquette enquête mu gëna gaawé na mu gën a ci ki di Ousmane Sonko maître Abdoulaye Tall néna ko procureur ya def ya woté ya japplu waaye na ngeen assumer jusqu'au bout laa la wax lepp lu ci xew ci tegum loxo Ousmane Sonko bi yée lepp lu nga xamné mo xew ci tegum loxo Ousmane Sonko gi nang ko assumer ba mu sës maître Cheikh Khoureyssi Ba nee na ñun de liñ doon xaar ci bopam moo di rek ñu exécuter la nga xamné mom lañu dogal ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko waaye laaj ñu fi ñu mujj ci li sàccum téléphone wal fu ko di ñéni ni kon sàccum téléphone la ah le procureur sur Sadio Sonko la la wax ni bi moy ñettel condamnation doom laa la wax ñett de ñett la ñu ko tegleel jox ko ko lépp ci ndodd Ousmane Sonko Walf Quotidien ne bii la yoon nag sàccum téléphone waaw waaw Ousmane Sonko volé ba noppi di wooteeg fitna waxuñu suus de déedéet dafa volé ba noppi wooteeg fitna voog su foofu kon volem googee maanaam sàccum téléphone nga risque nga ci de boo leen bëggee dégg dëgg risque nga ci ndax Ousmane Sonko laa la wax fi mu nekk nii dañu ko garde à vue nañu ko laa la wax te la mu ne risque bi laaj ma fa mu ne risque baa nga ca divers chef de délit et lii nga xam ne procureur moo ko ca teg de biyee boo képp ku ko jege na waajal de képp ku ko jege na waajal ndax à tout moment rek à tout rek mën nañu la woolu laa la wax nii yow nga jot sa convocation kon biyee boo ngeen waajal Ousmane Sonko ci le quotidien yéene kaay nee na man ci boppam dañu ma singali victime d'harcèlement benn RG laa la wax wala ay RG sax laa la wax ñoo ma tëj bët di ma sama dara rëccu leen sama dugg sama génne sama sama tëdd dara rëccu leen waaye dama ne lii pour man rek ci benn nit sénégalais ñu may morcelé comme pas possible askan wi yéen a xippi gëddi xol gët dañu ma singali l'observateur ne kon bu doon ñong ci film rek biyee boo ngeen xam Ousmane Sonko andina benen feuilleton bu yees wala benen saison la la wax la andi moy 3 troisième saison bu Ousmane Sonko film bi lu mu tudd sàccum téléphone Ousmane Sonko qui téléphone portable ñu ne deete way mu ne Ousmane Sonko woote na fikna. titre film ba ngi ni vol portable appel à l'insurrection Way l'observateur ne ñi bu ñu yaakaaree ne kon bi mënee señ su génn mu simple ni rek déedéet ndax nak le dossier risque l'ouverture d'une nouvelle instruction avec une peine à la de 5 à 20 ans de prison ferme déedwaay mënees nañu ko ci te juróomi at ba japp ñaar fukki at ndax lan poursuivi pour des faits criminels li dañu ko dëxañ ci dossier bi laas yéene kay ne du kenn ku dul procureur nag procureur moo takk fitam fëgg deñum yónnee ngir ñu jappal ko Sonko mu ne nii daal di tecc en attendant garde à vue wa Pastef ak Yewwi Askan Wi nee na ko téye nga de waaye nag biyee boo nga xamne ne ko bayyi ci ni ba ci ne wa Pastef ak wa Yewwi Askan Wi nee nañu màjjaalu ñu ñaanu ñu Ousmane Sonko la ñu bëgg ñu bayyi ko sa na mu gëna gaawé Ousmane Sonko ci laas yéene kay nee na man ci bopam maa fuqati téléphone bi laa la wax ci soxna soo see mu doon filmer te gendarme la waaye dama ne ani luy nday yu man ñu may filmer laa la wax sama dara du leen ump pour lan laa la wax man maa ñoo di bi fuqati ko daraay sàcc amu fi laa la wax maa ko fuqati ba mu neex enquête yéene kaay ne gaañ waxuñu fuqati de sàcc la ñu wax nee nañu dangaa sàcc téléphone bi ñu ne deetewaay nga woo teg fitna la fuutu sur lii rekk moo tax na ñu daal di koy téyendi en garde à vue libération yéene kaay ne ko jàppee sax ëpp na une arrestation musculée laa la wax nanu ko doxalee ba ne ko niib téye tey ma jox leen film bi GIGN boppam dafa tëb muru kër Ousmane Sonko laa la wax ñu ne deete waay mu défoncé porte principale bi engagé dugg ci biir dox wutali Ousmane Sonko bu nekk ñett du ma dem laa la wax nii opposé wu def gaañu jaay ko doole ci kanamu njabootam jël yóbbu libération yéene kaay ne mooy film bi laa la wax waaye procureur nag nee na Ousmane Sonko boo gisee ñu doxalee nii rek daf fekk yaa sàcc téléphone jàmbur yaa sàcc téléphone soxna sii nga xam ne gendarme la ma lu xew boo laajte woon Gueye teer bi ci boppam dañu ko njaayam carburant bi laa la wax ci ay butéel ñu ne dakk moto yi ñu ne leen amul daw ay manifestation benn benn ñu jot koo enregistré ci yenn gox vox populi ne kon bàyyil ma samplaaj ndax man fu mu nekk nii damaa réer Ousmane Sonko mi ñuy tog loxo nii lu bëri def ma jee réer daal am na lu ma ci umpale dama ne ax ah, ni ñu ko tegee loxo nii xanaa kon condamnation bi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam ci mbiri suite dëgg Ousmane Sonko dañu ko arrêté ci leneen lu nga xam ne laalewul benn yoon ak mbir Adji Sarr nay leer laalewul benn yoon ak atteb contumace ba nga xam ne moo tegu ci am ndoddam Les Échos yéene kaay ne kon avocat yu Mame Mbaye de ñoom nag déposé nañu benn réplique gu 34 pages laa la wax fanweer ak ñeent ci ay page ndax boo leen fàttalikoo de avocat yu Ousmane Sonko dañoo leen di feelu ñoom ca wet ga benn réplique gu 34 pages ñi ñoo mën gaañaa ngay liggéey de avocat yaa ngay liggéey yéen a liggéeyul le soleil yéene kaay ko mbiri mambay ñaa xaar ndax Ousmane Sonko defaat na leneen yees bi la yoon nag dañu ko téyandi ndax lan tekk di xool nag nee tekk di xool xippi seen i gët mel ni dafa am lu ñuy ragal laa la wax nii boo demee ci station Total yi dakkal nañu seen ab liggéey Auchan yi tëj nañu banque yi ci boppam tey liggéeyuñu ndax Ousmane Sonko mi ñuy teg loxo dañuy tiit kon ñu sen yoon nekku ci mbir mi ñu ngay ñaxtu jàppal ki di Jean-Luc Mélenchon Juan Branco Déthié Fall Bougane Gueye Dany Yewwi Askan Wi Aminata Touré maire ba la ñu def jëmale ci nguur gi nee nañ lu njiy njaag nguur gi moo di la la wax wa Pastef ci l'indépendant yéene kaay takku len taxaw de mbéjum kanam la yéen askan wi borom koy fajal bopam kon nañu kana a ba mu jeex Pastef sur la mobilisation et exige la libération de son leader le regard yéene kaay nee ko moo doon woote cooki fin yegg nañu si nag baadu li mooy cooki fin bi film bi amna ak danel fecc mi ci bopam amna ndat ndaat yi Ousmane Sonko mbaa du cooki fee baa ngi nii le regard mooy laaj de mooy laaj waaye yeewu askan wi nee nañu ko baa nañu bàyyi Ousmane Sonko bureau politique bu Pastef nag nee nañ mobilisation rek la def mobilisation la ñu woote nee na takku leen taxaw de procureur Abdou Karim Diop lépp dina leef tey jii ci samedi bi dinaa jàkkaarloo taskatu xibaar yi tocc yax bi wax leen lan moo tax ñu teg la wax nii tey lépp dina leer kaay nekkoon ka taj wax bi kay moo di président Macky Sall président Macky Sall moo taj wax bi laa la wax ci sommet Russie Afrique nee na leen ñun ci boppam ñëw ñu fii ngi tàllal loxo benn baaraam ab joxoñ la de waaye juróomi baaraam yi ñu tàllal jàppale na yalwaan la ñun ci boppam benn baaraam lañ leen tàllal na leen jàkk xool leen nee leen ñun duñu ay taalibe bay yalwaan laa la wax nii nay leer nag nous ne sommes pour manger ñëw ñu fi ngir yalwaan Alassane Traoré nee na leen ñun njiitu réew Afrique yi nañu xoolaat suñu bopp Afrique ak li mu am ci richesse ñuy wër di tàllal loxo lii ci boppam dafa ñaaw Ibrahima Traoré indispose ses aînés chef d'état africain président Macky Sall nag dëj na ko ceeb àndam nee na ko fii yalwaankat amu fi nay leer yow capitaine Traoré xamal ne ko njiitu réew yi yalwaan ñun bokkuñu si fii mastata amu fi ful fayda si ñun la fekke baax nay leer Macky daf ko recadré dëj Burkina nee na ko booy jëlal baa nga ñëw toog jàkkaarloo man ma jox la leçon ndax boo ñu jàppee ay yalwaankat juum nga yalwaan taxu ñoo jóg le point yéene président Macky de bu bëggee dégg dëgg Amadou Ba rek la war a tànn ngir nag mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar le point mooy wax de nee ko bu ko tànnee bu ko neexee nag xëcc pliyaanam toog fëggay loxom te xam ne waa ji dina def liggéey ba Macky Sall pour se témoin yéene kaay nee na moo di Amadou Ba maa nga ca làmb ja yéene kaay bi nee suba dimanche làmb yi sàjj na de ay combat yu neex affiche yu doy waar garga de daañ laale ci dimanche ci ñu ne deetuwaay moot Dia Dame seen ñaari affiche yu nga xam ne nii dimanche de feu dans l'arène la ñu koy woowee kon bu ngook dég daje seen i kaay jaa ngeen jëf